سيدنا محمد بن عبد الله خير خلق الله وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نيس دومي شيخ الحاج عبد الله نيس جام mbëggeelu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa شيخ الاسلام الحاج ابراهيم ibrahima ñas jëmmi cofeelu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikhul islaam alhaaji ibrahima ñas ruuxu mbëggeelu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikhul islaam alhaaji ibrahima ñas sirru ak leeru ak fathu ak madadu mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam cheikhul islaam alhaaji ibrahima ñas jëmmi jëmmi dëgg dëgg وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته علما وصورة وخلقا وخلقا ومجدا وأدبا وأبودية وإبادة ومحبة وخلافة ووراثة وما شاء الله تبارك وتعالى كوكو موي بانيس كوكو موي ki nga موي ne الاسلام موي يكتي الاسلام yëkkati دغ يكتي mo yëkëti tariqa tijan dëgg-dëgg yëkëti mo yëkëti fayda tijaniya dëgg-dëgg yëkëti cheikh tijani mo waxon ne taatil faydatu ala ashabina hatta yadkhul an-nas fi tariqatina afwajan afwajan wa taati hadhihi al-fayda والناس في غاية ما يكونون عليه من wa والشدة من كوكو موي mooy borom جامانو ñii waxtaane koo xam ne que ne nii dégg nga dayoom amul dayo ci jëmmam ci mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayaati al xalqi man zaxzaxa al gayna wa mazaqa ahl al butli iz zaxrafu al kooku moo waxoon ne dégg nga suma dund bi ñeel na gën ji mbindeef muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa Seydina Muhammad moom nga xam ne moo dindi kiiraay bu dox diggante jaam bi ak yàlla Seydina Muhammad moomu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo dindi réer moo faar réer indi xam-xam Seydina Muhammad moomu nga xam ne moo toroxal kéeféer indi lislaam laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah mu ne kooku mooy suma su suma suma suma dund ñëpp ñëpp moom la ñeel bàyyi moo wax cheikh ibrahim radiallahu anhu moo wax ne moolaana muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo dindi dégg nga kiiraay bu dox diggante jaam bi ak borom bi kooku la ñuy waxtaanee tey ci rajo bii bu tedd bi ci direct bu tedd bii ci réseaux sociaux yii di waxtaan ci saahibul waqti di waxtaan ci qutbu laqtaabi di waxtaan ci xawsu zamani bañas di waxtaan ci waay la boo xam ne doomi senegal la waaye doom bu senegal ci tëroo doom yi gën a ràññeekoo ci doomi Sénégal la bokk ngir mbuggeelam ci yàlla bu kawe ngir itteem bu kawe ngir mahabbatoom bu kawe ci yonent mi sallallahu taala alayhi wa sallam ma ne ñu ngi waxtaanee waay la boo xam ne amut kem sharqan وغربا بل طالب يمير البوبم تشكوسي ني توب نديغلم باي اي تريم امون كيم في مشارق الارض ومغاربها موكو وخال بوبم من باب التحدث بنعمه الله تبارك وتعالى من فلم ارى في شرق البلاد وغربها نظيرا لاحبابي دنگا بمنه دنگا دنگا دنگا لخين لخين ولا بخين بخين جزما كو ملني ندند سمي سوبي سمي طالبي ci penku ak ci xarfu kooku moo juddoo tey ba ñeseen muy Baay Ñas kooku moo yaroo fii ci Koosi waaye kooku moo feeñale faydu al ilahi al rabbaani al muhammadi al tijaani al ibrahimi al xanifi fii ci manbaul faydati ci Koosi kooku moo gàddaay sanc Medina Baay kooku la ñuy waxtaanee tey ñaar fukki fan ak juróom benn ci dégg nga deux mille vingt vingt deux muy weeru juillet mu tolloo ak dégg nga ñaar fukki fan ak juróom-benn muy vingt six juillet mille neuf cent jamono boobu ba léegi wax nañ ne ñeen fukki at la ak juróom-ñaar mu tolloog dégg at yi nga xam ne waaye bu tedd boobu dëddu na àddina jëm ci boromam waaye bu kawe boobu jëmm bu jéggi dayoo boobu nga xam ne bu mel ni moom suuratan wa xalxan wa xuluqan wa wiraasatan muhammadiyatan maa wataa alal ardi maanaam jëmm ju mel ni jëmm Cheikh Ibrahim ci dayoo bu kawe bu ko yàlla jox ak ci maqaama bu kawe bi ko yàlla jox ak ci itte bu kawe bi ko yàlla jox dama nekku mel ni moom tempuwul ci kaw suuf dagguwul ci kaw suuf loolu nag zalika fadlullahi yuutihi man yashaaw loolu ngëneel yàlla la yàlla moo koy jox ku ko soob yàlla moo jox raaya boobu Cheikh Ibrahima Niass yàlla moo jox drapeau boobu Cheikh Ibrahima Niass yàlla moo jox mbóot moomu Cheikh Ibrahima Niass kooku la ñuy waxtaanee tey ci faddu bi mu faddu àddina te kenn du ko fàtte àddina nga koy jooy asamaan nga koy jooy ba léegi suuf mi ngi jooy Cheikh Ibrahim dégg nga alquran al karim mi ngi jooy Cheikh Ibrahim waa jooju nga xam ne daa iman layla nahaarin mi ngi jàng alquran dégg nga dégg nga fii guddi ak ci bëccëg moo ko waxal boppam boo demee ci téere bi ñuy wax seyrul qalbi mi ngi sant yàlla foofu dégg nga dégg nga fal absarat ayan aynaaka ahla maishatan min al abdi fa alhamdulillahi kulluhu ndax gis nga sa ñaari but yi yow ki am seetlu yow ki am basiira yow ki añaanut yow ki am fu ndax gis nga ku mel ni jaam bii man Baye Niass man El Hadj Ibrahima ndax ku mel ni man ndax sa ñaari bu di gis na ko amul ndax man maay koo xam ne fa walhamdulillahi kulluhu man maay sant yàlla lépp kon kooku la ñuy waxtaanee dégg nga kooku mooy ki nga xam ne moom la ñuy fàttaliku fàttaliku sant yàlla gërëm dogalu yàlla dégg nga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna ci bés bii la sëriñ bi dégg nga daa di wattu dégg wane gannaaw jëmmam bu tedd boobu nga xam ne boo ko xoolee rek gis yonent bi sallallahu alayhi wa ci jikko yu kawe yi mu yore woon ci xam-xam bu rëy bi yàlla defoon ci moom ci itte bu kawe bi yàlla defoon ci moom ci leer bu màgg bi yàlla def ci moom waaye ci xilaafatul usma bi nga xam ne mi ngi dégg nga fees dell jëmmam waaye ci mbuggeelu yonent mi sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne moo fees xolam moo fees ay butam moo fees noppam bal mooy bëtam mooy noppam mooy tànkam mooy surrom mooy roxom mooy xolam mooy xelam mooy nafsom mooy jabaram mooy doomam mooy warwaayam mooy dëkkwaayam موي madina موي palemi قصور مدينة شام كوسي وتيبة وكولخ قد تحيا بذكر الذي كمل ma ne kooku mooy cheikh lislaam alhaaji ibrahima ñes kenn du ko fàtte kooku mooy ki nga xam ne woy ibrahima ñes anhu kooku moom la woykat bi waxoon ne xalafa zamaanu la yaatiyanna bi mislihi kazabat yaminuka yaa zamaanu fa kaffiri jamono gëñ mu ne danaa indi ku mel ni Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu pays bi daal di koy tontu ne ko yow zaman da nga weddil sa bopp yow zaman gëñ bi nga gëñ kafaara war na la da nga nga ku mel ni Cheikh Ibrahim mënatoo ko indi waaye la boo xam ne ci dëgg-dëgg daal <clears throat> ngëneelu yàlla la dalika fadlullahi yuutihi man yashaau <clears throat> yàlla moo ko wax ci alquran qul inna alfadla bi yadillahi yuutihi man yashaaw ngëneel waxal ne ngëneel yàlla moo ko yore moo koy jox ko leen daairatul fadila mooy jëmmu cheikh ibrahim radiallahu anhu nga xam ne dégg nga lépp lu ñuy soxla ci jullit mi ngi ci moom lépp ci jikko yi lislaam matee na ko lépp lu ñuy soxla ci muumin billahi mi ngi ci moom lépp ci maqaamaatul imaan yi matal na ko lépp lu ñuy soxla ci lixsaan mi ngi ci moom lépp lu ñuy utee loolu ci maqaama am na ko bal defal na ko ay taalibe yi nga xam ne moom ràññeewut kii wala kaa ku bugg yàlla rek ngay olof ngay séeréer ngay tukulóor ngay bambara ngay naar ngay ku xonq ngay ku weex inna akramakum indallahi atqakum atqaakum képp ku ko ñëwal rek mu yóbbu la ci pay yàlla bi moom moo ko wax wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barri rahimi ilahina wa taalamu hal fi lxalqi ahna alayhim mada dahar minni wal ba kama dana kooku mooy Cheikh Ibrahim Niass kooku la ñuy fàttaliku ndeysaan mu bés boo xam ne bés bu tiis bés boo xam ne bés bu lëndëm bés boo xam ne bés bu metti bés boo xam ne bés la boo xam ne dégg nga bés bu jafe la bés boo xam ne nii dégg nga ci lañ joxe xibaar <coughs> ne Cheikh Ibrahima Niass génn àddina kooku waxoon ne bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa mbëggeel boo xam ne du dañ ba ba may deexee xatta yumsiyal jafnu muxmada uhubbuka hubban laa yukayyafu amruhu bëgg naa la mbëggeel boo xam ne kenn mënu koo natal natable natale wala nga melal ko melal bi mat bëgg naa la yow yonent bi sallallahu alayhi wa mbëggeel boo xam ne duma dañ di dund ci yow béy bu ma dee dégg nga ñuy sëlam suma bët dégg nga dama lay bëgg bés boobu dama ne moom la ñuy fàttaliku waaye bu tedd boobu nga xam ne boo ko fàttalikoo rek fàttaliku nga sëriñ bu mat sëriñ fàttaliku nga kilifa bu mat kilifa fàttali nga jullit bu mat jullit fàttaliku nga tiijaan bu mat tiijaan fàttaliku nga taalibe Cheikhu Tidiane aarifu billaahi faydu bu mat faydu kooku mooy koo xam ne boo ko fàttalikoo rek dégg nga fàttaliku nga yàlla ndax moom waxal nañu ne sëriñ mooy koo xam ne boo ko dégg nga dégloo bu waxee waxam fàttali la yàlla dégg nga bu jëfee jëfam fàttali la yàlla boo xoolee xaalam xaal bi daf lay yóbbu ci yàlla kooku mooy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu kooku mooy doomi alhaaji Abdullah Niass kooku la ñuy fàttaliku fàttaliku boo xam ne du nga tiingat yàlla déedéet du fàttaliku boo xam ne fàttaliku naqar la déedéet waaye fàttaliku koo xam ne boo ko xoolee sax boo meree da ngay kontaan muy Baay Ñas boo ko xoolee boo dee noonam nga sax boo ko xoolee sa xol dana fay feex ngir leer gi yàlla def ci moom boo ko xoolee rek sa problème yëpp dafay dem ñëpp seede nañ loolu ci bàyyi boo ko xoolee rek nga gis jëmm ji di soppeeku ni guddi ak bëccëg di soppeekoo muy ay leer yoo xam ne nuuruhu أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال leer bu mag boobu nga xam ne ci la leer yëpp cosaanoo jëmmu leer boobu mooy jëmmu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu leer bu mag boobu nga xam ne kalimba yàlla gi ci la bindee lépp lu bind jëmmu leer googu mooy Cheikh Ibrahim radiallahu anhu leer bu mag boobu nga xam ne moo amal leer yi bu leer di leer moo tax mu nekk leer mooy jëmmu Cheikh Ibrahima radiallahu anhu haahuutan wa laahuutan wa jabaruutan wa malakuutan wa naasuutan wa sirran wa ruuhan wa aqlan wa qalban wa nafsan kooku mooy Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu waaye la boo xam ne dafa dëppoo ak jamono boo ko fekkee seet ko ci xam-xam amut kem boo ñëwee ci ulumu shariat yi cheikh ibrahim àgg na ci njoloxtal la amut kem boo ñëwee ci ulumu tariqat yi cheikh ibrahim ñes amut kem àgg na ci njoloxtal ba boo ñëwee ci ulumul xaqiqat yi cheikh ibrahima ñes àgg na ci njoloxtal ba amut kem boo ñëwee dégg nga ci yedd adab yar ak teggin fonk ñaari waajur bugg leen Cheikh Ibrahima amul ci kem boo ñëwee fonk say mbokk fonk say doomi baay Cheikh Ibrahim Niass amul ci kem boo ñëwee ci jokk mbokk Cheikh Ibrahim amul ci kem boo ñëwee ci way tumuranke yi ci néew ju doole yi ci miskiin yi ci nga xam ne amuñ luñ lekk amuñ luñ naan amuñ fu ñu wéeru Cheikh Ibrahima amul kem ci toppatoo leen boo ñëwee ci bëgg sa réew Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu amul kem ci mahabbatu réew Sénégal Sénégal bëgg Afrique Afrique aux Africains dama ne kooku mooy borom bés bi kooku la ñuy fàttaliku kooku mooy cheikhu suyuuxi kooku mooy ki nga xam ne soxlawul ku ko bàkk yàlla moo ko bàkk kooku mooy ki nga xam ne soxlawul ku ko bàkk yonent bi sallallahu alayhi moo ko bàkk kooku mooy ki nga xam ne soxlawul dégg nga wax bi ku ko bàkk Cheikhu Tidiane moo ko bàkk kooku mooy ki nga xam ne soxlawul ku ko bàkk aarifiina billahi ñoo ko bàkk kooku mooy ki nga xam ne soxlawul ku ko bàkk géwélu yàlla yi géwélu yonent bi sallallahu alayhi wasallam géwélu Cheikhu Tidiane yi géwélu maarifatu billahi géwélu erfan ñoo ko tagg ci làmmin boo xam ne làmmin bu weex làmmiñ ku weex làmmiñ ku ñuul làmmiñ ku xonq foo dem ci àddina ci Mauritania ci Nigéria ci Africa ci ci ci Europe foo dem rek ci mbind ci wax ci xaal ci lu ñu wax ci luñ waxut ci luñ tëdwiin ak luñ tëdwiinut luñ bind ak luñ bindut yaa ngi fekk foofu ay wax yu kawe ay nit yu kawe ay nit yu tànneef nit yu sell wax ko ci Cheikh Ibrahim dégg nga ma ne waa jooju moo dëdd woon àddina ci bés bi muy bés boo xam ne bés bu tiis la waaye bés boo xam ne suñ fàttali koo waa ji rek fàtte tiis bi Cheikh Ibrahim duñ la fàtte mukk Cheikh Ibrahima matal nga sa kóllëre ak yàlla tabaraka wa taala Mawlana Cheikh Ibrahim matal nga sa kóllëre ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Ibrahim masal matal nga sa kóllëre ak Cheikhu Tidiane Mawlana radiyallahu anhu Mawlana Cheikh Ibrahim matal nga sa kóllëre ak Maam El Hadj Abdoulaye Niass Mawla Mawlana Cheikh Ibrahim matal nga sa kóllëre ak sa yaay seydaam aysatu jànqa moolana cheikh ibrahim matal nga kóllëre ak sa mag cheikh mouhamadul xalifa moolana cheikh ibrahim matal nga sa kóllëre ak dégg nga mbooleem doomi alhaji abdoulaye ñasi yaa cheikh ibrahim yaa baax ya cheikh ibrahima yaa rafet jikko yaa cheikh ibrahima yaa neex a roy yaa cheikh ibrahima yaa doy roy téef yaa cheikh ibrahima ñi ngi lay ndamoo yaa cheikh ibrahima ñi ngi lay ya yaa cheikh ibrahima ñi ngi lay sant yaa cheikh ibrahima ñi ngi lay gërëm yaa cheikh ibrahima ngi lay ñaan nga walluñu yaa cheikh ibrahima yaa cheikh ibrahim ابراهيم يا شيخ ابراهيم جرم له ميرسي شيخ ابراهيم شكرا شيخ ابراهيم ثانك يو شيخ ابراهيم جارام شيخ ابراهيم جيري جرجفي بانيس سانت بانيس الحمد لله وشكر الله دويلو نين لا ادينا دويلو نين لا الاخر لي نيان يالا ركي سا بركه يالا سخال نيو كيسا يون وجوبي يو يا نيانون يالا دعوت ربي ان يا ام هدي كل الورى ويحمدون السعي سيون بوليربي sa yoon bu jub bi nga xam ne nga wax ne fal amru waadihun laa ishkaala jërëjëf Cheikh Ibrahim waaye jërëjëf gaa yu baax yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak moom ka sayidi ali Cissé wa ka sayidi cheikh Baye Ma Abdou Niang wa ka sayidi cheikh dégg nga Serigne Mbaye Niass wa ka sayidi cheikh Omar Touré wa ka sayidi cheikh Ibrahima Fall wa ka sayidi dégg nga dégg nga cheikh Ousmane Ndiaye wa ka sayidi wa saadaati wa man lafa liffahum ci ñu weex ak ci ñuul ba ci sayidi Cheikh Hassan Deme ak mboolem sayidi Cheikh Mahmoud Baye Mahmoud Niass sayidi Baye Amadou Thiam dégg nga bi mbooleem ñi àndoon ak moom ci doomi baayam yi dégg nga ak soppeem yépp ñi ngi leen di fàttaliku ci fàttaliku bii ñi ngi fàttaliku góor yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi di ko bugg di ko gëm di ko wallu di ko wallul di ko gëm di topp yoon wu mu nekk nga xam ne moo waxoon ne isa saara xayru naasi surtout waraahu wa in xalla yowman falmasiru baidu ma ne ki ñuy fàttaliku ci le 26 juillet deux moo dëdd woon àddina le 20 tolloog le 26 juillet 1975 kooku mooy Baye Niass kooku mooy ki nga xam ne buñ ko tuddee tudd nañ xam-xam koku moy ki nga xamne bi mu genné aduna dafa melni xam-xam dafa dé waye koku moy ki ñaanon yàlla ne de nga wal hifz kitabika al-karim karamati ila liqa'ika al-azim shawqi wa hubbi fika la yashfihi siwa hululi wa irtihali fihi dama ne مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه mooy موي كي خامني واخون ني دنگ wa ashkuru rabbi laysa sirriya aaqiran fa asgaru atbaayi bariun min ashirki beneen mu ne fa asgaru atbaayi uniila fanaa maa ngi sant yàlla mi nga xam ne sama mbóot jërmeelut ki gën a tuuti sama taalibe am na fànnaaw ci yàlla may nañ ko ko yàlla may na ko loolu ki gën a tuuti sama taalibe yi dégg nga dégg nga mucc na ci bokkaale yàlla te lu jafee ngi noonu kooku bu taxutoo nag waxam boobu ak li ko yàlla may damay wax ne xam-xam dafa dee gannaaw loolu waaye ànd ak may gu yëpp dégg nga boo ko comparé ak li Cheikh Ibrahima amoon ci xam-xam rek da nga naan xam-xam dafa dee ndax lan ndax majalis si xam-xam yi ñu ngi koy jooy laxdar yi dégg nga ak dégg nga ibnu Achir ak dégg nga wax bi risalatu ibnu abi zeydin al qayrawaani dégg nga ak dégg nga muxtasar Cheikh Khalil ak lan dégg wax bi ak lihmaraar ñoom naxu ñoom dégg bi ñoom feq ñoom funuun yëpp alfiyat ibnu Malik dégg nga fununu luga fununu balaagati fununu badii fannul balaaga fannul badii dégg nga wax bi nga ñëw ci ilmul arud ilmul nujum dégg nga xam-xam yi daan gàddaay di ko jàng ci xam-xam di wër ci sëriñ si ci Sénégal ñu baax ñu tedd ñoo nga xam ne dañoo tànnoon xam-xam tànn yàlla dama ne xam-xam yooyu téer yooyu yëpp ñu ngi jooy Cheikh Ibrahim naam am na ñu ciy jàngale waaye am na ci yoo xam ne néew na foo koy fekk ñu koy jàngale te nga loolu yëpp ñu ngi koy jooy ci loolu am na yoo xam ne sana ko ay nit ñeneen jàngee nañ ko fi feneen ñu koy jàngale waaye nam ko daan jàngalee ak jëmm ju tedd jooju ak laabiir gi ak mbëggeel gi ak daraje ji ko yàlla jox mu waroon na noos waroon na noppalu mu fàtte noppalu neewal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila xatati birrahim ilahina sama itte ci mbindeef yi mooy lan mooy ma jël leen ommat leen yóbbu leen ci pays yàlla kenn la man na ñu ngi fàttaliku waay la boo xam ne moom moo ñaanoon yàlla daal di wax ne yow suma borom sama karaama na nekk alxuraan di ko jàng ba may dajeeg yow bàyyi na fi leer googu ñu ngi koy jàng ba léegi. dama ne bés bii la vingt six juillet ñu ngi fàttaliku waay la boo xam ne xetam xetam xetam jar na lu ci àddina billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa bàyyi parfum yi bàyyi moo dàq ci ar parfum yi àddina bi. daf daan jëfandikoo parfon waaye xet gi bàyyeekoo ci jëmmam ji billaahi lazi laa ilaaha illa huwa moo dàq xam-xam moo dàq dégg nga bi parfon ba tax na bàyyi mu laal parfum dafay menn parfum aljanna la bàyyi bàyyi mu laal dégg nga dara dafa mel ne yonent bi sallallaahu moo ko laal ci yow ci loxoom bu tedd bàyyi mu solu sañse dafa mel ne dégg nga xeeti tontóor yi xeeti naataangay taw xeeti naataangay gàncax xeeti leer yonent yàlla yuusufa xeeti leer yi ci mbindee fi taari xeeti leer yooyu nga dajee yëpp ci moom mu nekk ci baay ba pare nga gis nag ne ndekete yoo leer yonent bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo nekk ci jëmm jooju kooku mooy Cheikh Ibrahima bu sañsee rek nga daanu ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw fu mu teew moom bàyyi mooy nekk jant bi fu mu teew moom bàyyi mooy nekk weer wi fu mu wane gannaaw moom bàyyi lëndam ñëw biddiw yi yi tàkk nag doon dara commencé feeñ kooku mooy Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kooku mooy ki nga xam ne mës ta tuuti te du tuuti ba pencam yàlla kooku mooy ki nga xam ne wallahi lazi laa ilaha illa huwa bu ñu toppee ay waxam ak jëfeem du ñu réer ñu réeral kenn billaahi ladi laa ilaaha illaa huwa Cheikh Ibrahim mooy koo xam ne buñ toppee ay dénkaaneem ak i waxam duñ am benn problème billaahi ladi laa ilaaha illaa huwa Cheikh Ibrahim xam ne bu ñu xoolee vision ci Sénégal ak ci Afrique solution la pour defar Sénégal yóbbu ko mu naat gën a naat réew yi solution la pour defar Afrique mu gën a naat dégg nga mboolem continent yi waaye solution la ñeel jullit ñi solution la ñeel doomi aadama dégg nga radiyallahu anhu تلاوفت المامون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقال فيا ربي قرر للعيون بأن أرى سوى الحق من ذا القرن زال وزال ويعلو لواء الهاشمي ويعلو لواء الهاشمي وقد هوى لوى الغي والطغيان وهو تعالى إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك منالي ما قبلت نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه أجرني وأصحابي أراك ثمالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآلا وقت خدنا برفير بيت يويو yooyu waaye Cheikh Ibrahim mooy mo wax ne yonentou mi sallallahu alayhi wasallam muhammadul ma'mun sallallahu alayhi wasallam jàng na alquran jàng bo xamne ni alquran doyna ludul alquran nen la mané ne Mawlana Cheikh Ibrahim bi ñuy ci le 26 juillet 2022 moo wane woon gannaaw wan àddina gannaaw dellu ci boromam bàyyee ñu yàlla mu fàddu te fàdduwut mu dem te demut kooku mooy cheikh ibrahima radiallahu anhu moo waxoon ne fa suuratu ibrahima tabqa tazakkura ida aaba lilmawla alaliyi wa tafakkura mata dafanuuni fi turaabi tahaddasu لقد كان ينوي الخير لو كان مقصرا أجاور ربا واهبا متفضلا بقبري ويعطى العبد ما الكل حيرا حياتي رمز كلها وإشارة تفسر مهما ذلك القبر بعثرا وكنت حروفا عاليات وأسطرا فوقعها شخصي متى قام مضاركوكم شيخ إبراهيم رضي الله عنه ma ne ñu ngi fàttaliku ci le 26 juillet bi 2022 waaye la boo xam ne njàmbaar ku jàmbaare ni bàyyi wallahi néew na ci jamono mbooleem xeeti njàmbaar yépp def ko dajale ci arab yi ci olof yi ci lakk yi ci xeeti doomi aadama ci yar yi ci jur ji mboo ci malaaka yi sax nga xam ne ñoom kuy jàmbaar ñoo la gën a jàmbaar Cheikh Ibrahima dafa amoon seen jàmbaar waaye mu boole ci nag njàmbaaru wiraasa muhammadiya njàmbaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu laalee lislaam mu taxaw kooku mooy daan xeexal lislaam kooku mooy gayndey tariqa kooku mooy gayndey shariatu wal haqiqa kooku mooy ki nga xam ne xalimbaam bi mësta nelaw xalimbaam bi mësta noppal noonu yàlla yi mbaam gi mësta noppal ñuy xeex lislaam ak tariqa bi faydu bi xalimbaam gi mësta dañ di tëbb di tëbbe kooku mooy ki nga xam ne làmbinam bi yàlla rek la doon waxal kooku lañuy fàttaliku tey kooku mooy ki nga xam ne tànkam yi tedd yooyu dégg nga inna xutuut yi wa inna xutuut yi للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخطيا كوك موكي خمنا أي جيغم تخيل نيال دومي آدمي دنگا وأهل زماني كلهم فاز راقيا سوى من قلا نهجي أسير هواي كوك موي باي رضي الله عنه كوك لني فاتل كتاي كوك موي كنا خمنا دنگا بطن بطن دبو بكم كو مسا خول نسق كوك موي كنا خمنا دنگا واو نبم يتدو يويو كوكو خول كونتان loo ci lu baax rek lay dégg moom lay déggale kooku mooy ki nga xam ne bëtam bi tegu ko ci kenn ku mu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex tàkk ci moom ba desewoo dara wala abdu abdu faani laysa fii baqiya gisut ku mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam ci nazar ci dégg-dégg dégglu wut ku may yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moom baay ci yëg-yëg yëgut ku may yonent bi sallallahu alayhi wa moom bàyyi dégg nga ci xam xamut ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bàyyi ci bëgg bëggut ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom cheikh ibrahim moom moo wax ne fa ala fashhadu anni uhibbu muhammada wa danga na ngeen seede ne danga wa abgadu kufranan kanaarin talahabu ألا فاشهدوا أني أحب محمدا وأبغض كفر أبغض كفرانا كنار لهب أحب إلي من وليدي ووالدي دنجا وأهلي وأولادي أك ببيتي يجيخ yonent bi moo ma gënal sama bopp moo ma gënal sama yaay moo ma gënal sama baay moo ma gënal samay doom moo ma gënal lépp lu ñuy bëgg kooku mooy Cheikh Ibrahim kooku la ñuy fàttaliku kooku mooy ki xam ne deewut déedéet man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa man kaana yaabudu allaha fa inna allaha xayun laa yamuutu waaw sayiduna abubakarin siddiq radiallahu anhu moo waxoon loolu bi yontu saa sama génne àddina mu ne képp ku doon jaamu muhammad muhammad deena yàlla ko wax ci alquran innaka maytun wa innahum mayitun waaye dee ak yonent bokkut ak dee amatu naas yi de ku weddi rek boo dee nañ la tëral rek ñetti fan ñetti fan soo bari na benn fan duñ la def galaas duñ la pikiir dara ñu xool luy xew ak koo mën a doon yonent bi génn naa àddina ay fan ñu tëral ko galaasuñ ko defuñ ko lenn lu ñuy defal néew firaw na yi wala mbindee fi ci jamono jooju dégg nga ku ñëw jullee gàddu gu ñëw jullee sallallahu alayhi wa sallam sidna Babacar tiim ko ne ko tibta hayyan wa maytan sallallahu alayhi wa sallam bi ngay dund dangaa ngaa teey tedd waaye bi nga dee it da ngaa teey bàyyi mu ne boo xool yontu bi da ngay foog ne sax dafa tëdd nii nelaw rek benn alaama ci alaamaatu dee wala xet yi néew amul ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu bàyyi ñees daf ko am ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi deewut bés bi tiis na lool ci fàttaliku ko ko waaye nag suñu xoolee bëtam yi rek fàtte bés bi suñu xoolee noppam yi rek ak lam ñu doon déggloo ñu fàtte loolu suñ fàttali ko xam-xam ñu mu doon sotti ak maa maarifatu billaahi bi mu indi fàtte loolu suñ fàttali ko lislaam bi mu xeexal indi lislaam bu wér l'islam bu amul pexe l'islam bu amul fen l'islam bu amul tappale l'islam bu amul noonu pexe yi l'islam boo xam ne ni amul lenn lenn lenn loo xam ne nii dañ koo rax sos ko ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa mu boole charia ak xaqiqa ndax l'islam dafa nekk lu garaaw dafa nekk lu garaaw a a garaaw garaaw ñu bëri dañuy wax l'islam te xamuñ ko maqaamaatu diin salaas islam wa iman wa ihsan lépp la boole moom Cheikh Ibrahim daf ko leeral yonent bi géej la woon Abu Hurayrata nee na ñaari wi laa doon naanee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii sottil naa ko mooy chariatu bi beneen bi su ma ci waxoon benn baat rek ñu dagg sama baat bi Abu Hurayra moo wax loolu kon nag dama ne bés bu màgg ngi nii bés boo xam ne dafa mujj soppeeku suñ koy fàttaliku bésu mbégte sant yàlla wa ma bi naamati rabbika fa haddis يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دانيو گرم يالا موتاخ بس بي موي مبكت سي كون نك شيخ ابراهيم مغي نونو كين منوكو جيخال كين منتا واخ سي موم با جيخال واخ جي دغ دغ دغ دغ جارام شيخ ابراهيم لي يونتبي صلى الله عليه وسلم واخون سي حجه الوداع ني سوتلنا سيدلن ني جوتلنا يالا mu ne ñi nax jotal naa saaba yëpp ak góor ak jigéen ne ko jotal nga mu ne yow yàlla seedal na jotal na waaye dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla Cheikh Ibrahima jotal nga jotal nga xam-xam bi la yàlla jox shariatan wa tariqatan wa xaqiqatan jotal nga kóllëre gi matal nga sa kóllëre bàyyi alaaji Abdoulaye Niass jotal nga kóllëre Cheikh Tidiane naxooñu naxoo say doom yaa Cheikh Ibrahim نخو سي طالب يا شيخ ابراهيم نخو سم توب يا شيخ ابراهيم نخو سي نجيتي ريو يا شيخ ابراهيم نخو سي غورنما نخو سي كولري تي ادنا ييغا خام ييب نخو تي كين كين دو يو لي ني نيان رك مو يالا ني يالا دول رك ني تيكو غيسا يون موي دوم موي سيت موي طالب لول موي نيان غي ndax da nga جوت jot neexo jot ken mënu la jot da nga jafé xam neexo xam bay ken mënu la xam la yurafu fi dunya wala da ngaa jafee nuru yaa Cheikh Ibrahima ku waaye nuru nuru nuru des na sa kaala gi bokkut ak kaala yi déedéet laa ba den sa jëm ji bokkut ak jëmm yi Cheikh Ibrahima laa laa laa ana nafsu wal afaaqu mahma raaytaha taraani fa innil kullu min bi rabbi bokkoo kenn kenn du yow yow lañuy ñuy roy nag yow la ñuy sagoo Cees Gumba Abdallah yow lañuy ñuy tiitaroo yow lañ xam yow la ñuy xamle yow lañuy bëgg yow lañuy xir ñu lay bëgg ndax foofu la njëriñ li gën a nekk waaye kenn du yow bëgg loolu nga ñu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kenn du yow ci mbëggeel yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa man raama darki fi ishtiyaaqi nabiyina fa qad raama amran mustahalan muharrama kenn du ma jot ci mbëggeel yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ko wax te dëgg kon nag sëriñ bi jaaraama ñes le 26 ñu ngi lay jooy ñu ngi lay jooyati ñu ngi lay namm ñu ngi lay bëgg waaye ñu ngi lay wettilu ko ndax bàyyee nga ñu yàlla wala ñu sa wala ñu sa bopp Cheikh Ibrahima wala ñu sa bopp wala ñu àddina wala ñu alal xamim la woo ñu yàlla fàttaloo ñu yàlla day det dañoo def yàlla su ñun ba nga xam ne gëm nañ yàlla gëm nañu aljanna ak safara ragal nañ safara bëgg nañu aljanna waaye mbëggeelu yàlla bi nga def ci ñun tax na ba moo ñu gënal aljanna Cheikh Ibrahima loolu tax yàlla may la xam la rek jëmee aljanna la bëgg la jëmee aljanna la moo tax nga sant yàlla ne wa man yuhibbuni wa man yaraani fii jannatil xuldi bilaa ku ma bëgg gis ma rek yaa ngi ci aljanna aljanna ñaar la nag aljannaay xut ak aljannaay shuhud lan moo ko may mu taxaw ne ku ma bëgg gis ma yaa ngi ci aljannaay béel parce que moom moo bëgg yàlla yàlla gënal ko aljannaay béel yàlla jël aljannaay béel may ko ko ne ko ku la bëgg rek yaa ngi ci aljannaay béel waaye ndolla li nag mooy sama jëmm ji man yàlla ku ma xool ku la xool gis ma ku xool bàyyi gis yàlla ku xool bàyyi gis yonent sallallahu alayhi wa ku xool bàyyi gis Cheikh Tidiane ku xool bàyyi gis umma bi yëpp مولم بنده في الله ملاكي نيني جيني شيطاني روحاني ينكي جماداتي تبايو اجرام كو قول باري لبقي دا يجمع موي كامل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وهو لم يكن من المشركين شاكرا لأنومه اشتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالح ثم أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آه إبراهيم ظاهر إبراهيم باطن إبراهيم بن جكبك إبراهيم مجيمي أكا نورو لولو موي لاخر لاخر موي لولو زاير موي باتنو باتنو موي ظاهر دك دك شيخ إبراهيم جرجف كم كم بريبين يندل نيو انديل لير غو ماغ نيو tax na ba sa fàddu gi jooy nañ ko waaye jooyatuñ ko dafa jooy yu soppeeku mbégte la jooy la yoo xam ne ronkoñ yi bu ñu xoolee ci zaahir du tàng dafay sedd parce que da ngaa seddal suñu xol ci yàlla laata ngay dem dañ ñoo xamal yàlla te demoo dañ ñoo wan yàlla te demoo moo tax bi nga demee dem nga waaye demuloo yaay moom mooy yow yaay ñun ñooy yow moo tax yaa ngi fi ba léegi sa doom yi ñooy yow sa sët yi ñooy yow sa taalibe ñooy yow dawlu bi mooy yow yaa Cheikh Ibrahim yaa Aba Ishaq Aba Ishaq moom Cheikh Ibrahim Aba Ishaq innaka laysa raybun amul sikk sàkk ne yow la kon nag gaañi du du jeex du jeex jaaraama Cheikh Ibrahim جرجف يا شيخ ابراهيم يوسف سانت باغيس الحمد لله شكرا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلو نيولا تي لي نبغونا واخ تي بس بي لو نيولا تي لي نبغى واخ تي شيخ ابراهيم تي سوني مبغيل تي موم تي يالا كوي ديف الحمد لله كون نك جرجف نيس ني لي فاتلوكو نيغي صاح تي سا كولري نيغي صاح تي بغي يونتبي صلى الله عليه وسلم ñu ngi sax ci bëgg Cheikhu Tijaani ñi ngi sax ci bëgg mboolem wëlu yàlla yi ak mboolem mbindeef yàlla yi bañuñ kenn añaane wuñ kenn waaye bëgguñ kenn ku ma yow Cheikh Ibrahim ñu ngi jaayante ak yow di beesal suñ mbëggeel ci yow ñun taalibe yi suñu pas-pas ci yow suñ mbëggeel ak suñu xidma ak suñ sant bi ñu lay sant di la gërëm jërëjëf Cheikh Ibrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار العظيم اللهم إني أسألك إياك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بل إني إليك فقير فكل ما أنزلته فله انتهاء يبقى بعده الفقر ربي إني إليك فقير فما يكفي الفضل أن الأوفي والأفو أن المغفرة والمغفرة عن لساني والكرم الجميل الذي لا انقطاع له أبدا فكل ما سواك لا يغني عنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الراشقين صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقبلنا وأقبل إلينا بوجهك صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقبلنا وأقبل إلينا بوجهك صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقبلنا وأقبل إلينا بوجهك وادم علينا سترك وعافيتك وعطاياك يا جلالي والكرام